bi quartier bi di soppeeku nii ñu jekki fi rek benn jamono ak coono yu ñu doon wanteel ci bu ñu bëggee ndox di jor ay charrette di dem di rooti mu metti lool suñu ay jigéen wala ñun ñi di seeni borom kër ñuy dem di jagat ay bidon 20 litres wala sax yu ko ëpp mu metti lool ak lan suñu yoon yi nga xamante ni bii metti noo lool bu tawee oto yi pour ñu dugg fii sax problème la yàlla dogal na itam quartier la boo xamante ni bii dafa fegg bare na luy xew ci defkatu yu lu bon yi ku ci def sa lu bon boo maytulee boor bi ngay daw jëm ñu gis ñu kon ñun nekkuñu ci sécurité et ndox mi nag wax dëgg yàlla moo courant bi la ñu waxoon mais ba fi ñuy waxee nii lu ne lu ñu xam rek wax nañ ko lu ñu xam dox nañ ko waaye yàllaa ngi dogal ba léegi loolu sottiwul boo fi rootoon tey 20 bidon yu 20 litres am na ci kër yoo xam ne benn journée ñaari journée mënu ko def ak moom day jeex ci benn robinet public fële la ñuy dem bu dee ndox mu ñu naan foofu lañ koy jëlee bu dul loolu ci ndoxu teen yi la ñuy jël pour mën a fóot pour def yenn parce que dafa metti fi mu nekk nii ku ne xam na ni feebar dafa doy waar tey ndoxu teen yi te defuñu ci liñ ci war a def ku ne xam na ni mën na andi jàngoro bu ne Sococim aussi mu ngi fii ci suñu wet ku waxal yàlla xam ni tey metti na lool da ngay tabax muy xar rek te li ko andi mooy miin yooyu ngay dégg lu metti loo xam ni amuñu fu ñu ko jooytoo le maire wax nañ ko ko ay yoonu yoon ñuy tàllalaat suñu loxo Euh, monsieur le président comme ni mu ñu bette woon mu yebal fi nit ndaw kooka ñëw def ci ay jéego ba wax dëgg yàlla ñu mën a teg suñu baaraam ci ni électricité bi ñëw na mu des nag ndox loola tam mooy mooy li nga xam ne moo ñu gën a yiteel muy ndox parce que moom ngay defa lépp ñuy ñaan nag loolu ñu dimbali ñu ci taxaw ñu ci daal ba suñu jigéen ñi na yi ñuy wanteel loolu mu mën a mu mën a dakk